muy jigéen mbaa muy góor venez voir samp ndënd waaw ah, asalaamaaleykum waa samp ndënd TV maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen laaj seen jàmm ak seen jàmmi yaram li sama xalaat ci réew mi moom laa bëgg a wax man ne li ci sama xalaat xam nga lu am solo mooy nit boo demee ba bëgg a toog mën ngaa xam ni nga koy bàyyee waaye du ay agression ak ay toj ay sàcc ma loolu la sama xalaat te ndax dëkk bi métti na métti boo xam ne ndax yii ñuy lii ñuy def nii ci ñun parents ñun lay reposé ci ñu lay reposé ñun métti bi ëllëg ñoo koy ñoo koy yëg yàqaluñ seen bopp de yàqaluñ président yàqaluñ kenn seen bopp la ñuy yàqal ak ñun ñi di seen waajur ndax boo ëllëgee ñun ñooy yëg crise bi waaw ñu bëggoon nag ñu am daal jàmm ak salaam def ndànk waxtaan ba juboo ndax loo gis jàmm ak lal jàmm rek mooy jëkk te mooy mujj man daal loola sama xalaat waaw. salaamaaleykum soxna si ça waaw suñu xalaat day lenn la réew mi métti na métti boo xamante ne nii moom ñi ngi koy méttit lu lool waaye nekk di sant yàlla waaye daal yéeme na daal doy na waa trop parce que euh, li ñuy def nii amul solo te amul sens. kon nag dañuy ñaan yàlla rek yàlla na ko yàlla saafara barke Serigne Touba metti na yéeme na doy na waar te dara jaru ko nag daray àdduna rek jarul lii ay bakkan doo nga ciy wadd ay doomi jàmbur kuy jur doom rek soo xoolee ñi dem rek sa àdduna tukki dañuy ñaan yàlla na yàlla ko yàlla waa manifestation bi moom rafetluwuñu ko parce que dafa yàq suñu liggéey na man tey laay soog a xëy ba ba tey xëy siwu ma tey jii laay soog a xëy si ndax bu caaxaan jeexee dëgg des lu kan lam mënuma daw samay tànk baaxut waaw ma toog na sama kër waaye xam ne toog bu ñu toog arrangé wu ñu te yor njaboot waaye nag ñuy sant yàlla baax sant yonent bi waaw. di ñaan yàlla nag yàlla jële fi lépp bàkki Serigne Touba. waa sant waa samp na TV waaw maa ngi leen maa ngi nuyu bu baax a baax. a ah, réew mi dama si sama xalaat mooy moo jàmm moom moo gën lépp waaw réew mi moo wax dëgg yàlla parce que yàqu-yàqu yu bari na ah ba pare ak dëkk bu dëkk bu metti bi daal wax dëgg yàlla bu ma daal moom daal moom jàmm daal mooy am ci réew mi. dëgg yàlla moom sama xel dalul pour yóbbu xar quoi sama xel dalut pour yóbbu xar waaye heure bi fekkoon xar yi dem maa ngi xool ba xam naan danaa def wala du ma def waaye nag ni si fekkoon na ma baas ba yóbbu samay xar ak jamono bi wóorul daal wax dëgg yàlla ak li am ak li xew lépp daal xel mënul nungu yenn yi waaw. maanaam maanaam tënku ci ab ab maanaam tënku ci ab yar rek waaw tey woote jàmm rek te di ko sàkku waaw loolu daal laa yaakaar ne moom bu amee jàmm dina am ah man de bëgg naa jàmm wax dëgg yàlla ndax ay moom ay du yem ci bopp borom <laughs> fi te gis nga dëkk bi da ciy feeñ nii parce que am na ñoo xam ne tey jii il faut ñu génn dem lijjanti ji mën a yónnee seen njaboot pour ñu dépassu léegi nag ñooñu bu ñu tëddee ci biir moom naka la ñuy régler seen problème hmm? dëgg yàlla daal ma ci lu ma ci doon wax. bisimilah rahmaani rahiim. yàqal nañu dara ndax bu ñu nee bii bu fii marché bee sa ngay lakk sa saxaar si jolli njaay yi tasaaroo nga daw wacce fi sa xaalis sa njaay waaw dañ koo yëg ba feebar. waaw ndax suñu njaboot yi lekk ñu naanuñu su ñu lalee ñu ni marché bees ngay lakk ñu lal ñu ni tournalu yëmbale ngay lakk ah yooyu yëpp nag dafa soyee si eh, si nun jaboot bu amul lu mu lekk amul lu mu naan day metti suñu kër yi la sa nekk mën nu la ko wax waaye yàlla nag moo fi nekkal ñëpp yàlla moo fi nekkal ñëpp kenn kenn nekkalu fi kenn lu yàlla ak yonent ba léegi daal lu ngeen nu mën a dimbalee ñu dimbali marché bi jox nu as xaalis nu mën a liggéey ba suqaliku buñ ko mënee am si kàttanu yàlla ban mën a fi xàppi ndax nun kat eh, suñu njaay lu nu jaay du jar ndax marché bi daal da ngay waaru dañ ko defarul dañu bëgg ñu defar ka bu mu naayis lu nu si teg mu jar loolu la ñu bëgg si kàttanu yàlla buñ ko mënee am. ce que j'en pense ah en tout cas vie bi de la vie est dure de ici au Sénégal ndax fu dund seere rek àddina naqar na si yenn ndax baadoolo yi ñoo nekk 73 pour cent. kon nga xam ne ko riche amu fi Sénégal pays pauvre la ndax bu ñuy wax sa nit ñi gisuñu ko nit ñi sonn nañu gisuñu jën gisuñu yàpp gisuñu keccax sax gisuñu ko waaw saa bu ñu xëyee ñoo ngi débrouillé sonn bay bëgg a dee suñuy doom sonn dañuy jàng maa nga ne yor ay élèves yoo xam tubaar fakal jàng nañu ba seddu fi daal dara seddu nit ñi sonn nañu de boo demee ca hôpitaux yi nga gën a di ak faf nga ne naa man daa ko ma yàlla may wér rek sant naa yàlla ndax feebar te faju woo moom dara gënu koo met ah boo demee seringue sax danga koy jënd lépp loo xam ne dañ koy utiliser ci hôpital bi danga koy jëndi ak lu mu mënti doon analyse yi seer na lépp seer na lu leen waaye waxul loolu léegi waxu am nit ñi sonn nañ de ñi ci kaw war nañoo geesu ñi ci suuf waaw ñu ñaan yàlla nag yal na yàlla defaraatal sunu réew mi waaw tegal ñu fi ko am yërmande ku ñu mën a dimbali te geesoo baadoo lay waaw waaye ñii riis di riis rek ñii pauvre di gën a pauvre loolu moom kenn xamul ban monde la. daal li yàlla moo di ñu dimbali ñu ci dund bi mu wàññeeku te sunu géer gi barrage bi ci ne ñu dindi ko ndax ñu mën a jot ci jën yëpp moo doon ngeen bii ngeen fi fekkale ak jën yu bon yi moo fi am hmm, li ban toog la mën a togg. nit ñi dañoo débrouillé ba ñoo sonn bu ñu dimbali woon na ba ñetti plat yi mën a tegawaat añ reer ndékki dina baax kër góor dugg léegi suñu añee boo moytu ca reer ndékki ku ne yaay débrouillé boo jaaree ci mbeddi ndakaari xale bu na yaa ngi téye kaas à ak daggitu mburu moom la sa yaay am xam nga loolu du jàmmi réew bu njëkk ba nañ doon wër plat bi nii teg baraada bi daggate mburu yi famille bi yëpp ñu ñuy xel li ndékki ba doyal ah waaye léegi kan xamul ban ñun daa ñoo ngi ñaan yàlla changé te dimbali ñu moom yàlla sunu borom ndax xam naa lii moom moom rek ci man dara wasalaam. c'est metti c'est grave. maaleykum mbooloo mi ah, maa ngi leen di nuyu di leen ziar. Ah, bu ko defee nag a ah, ñun de réew mi ñun ñoo ko moom te ñun ñoo ko bokk benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar ndax ku wax Sénégal rek lim nga fépp bàyyi woo fenn kon boog li ñuy ñaan yàlla mooy jàmm ak sutura ak teraanga ak ngor loolu nag li koy maye mooy bokk ndey bokk baay di xàccandoo di dóorandoo kenn ku nekk jàpp sa bopp comme sa moroom li lay metti chaque jour na metti sa moroom li lay neex chaque jour na neex sa moroom mais suñuy awee ne ñee aw ne rek suñu réew mi dina jaxasoo jàmm du fi am te bu ñàkkee jàmm ñëpp a koy yëg amee jàmm ñun ñëpp ñu yëg ko bu ñàkkee jàmm ñëpp koy yëgandoo kon ñu ngi ñaan yàlla jàmm ak salaam ñun ku ñu jàpp ak ku ñu bàyyi ñëpp a yem ci ñun jàmm rek la ñuy ñaan ku ñu ko mën a may daal ñu ngi ci yow ku ñuy xañ jàmmit yàlla na la yàlla xañ jàmm loolu daal la ñuy ñaan di ko bëgg di ko bëgg sunu njaboot ndax lépp ñoo ko bokk benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar nañu rafetoo nañu jàmmoo xàccandoo dóorandoo bokk nday bokk baay waaw ku ci xëy yaa ngi daane sa doole bëgg loo am ak sa njaboot ak sa sutura soo amul jàmm nag mënoo xëy mënoo wàcc mënoo am dara kon daal nañ ñu ray may jàmm ñun ñëpp ñu bokk jàmm ji alhamdulilah lañu dañuy ñaanal yàlla yokk fi teraanga ju bari ba ñëpp xat si ndax ñoom bu ñu yokk rek ñu yokk waaw kon ànd leen discipline ngeen yaru ànd dal ak ndax sëriñ si wax na ñëpp wax nañ ndax bëgg jàmm képp ku fi yéeg yàlla sa njig laay ku wàccit foo mën na demit yàlla nga fa yónnee jàmm kontaan nañu de réew mi daal kontaan nañu waaye daal dañu bëggoon xale yi dal rek bu ñu dalee léppay baax ndax maka mi fi ne yaru na ki ñuy wex mooy bëgg a yéegit yaru na muy sonko kon dëkk bi am leen discipline ngeen yaru bu ngeen bëggee sonko da ngeen am discipline yaru waaye du tax ngeen di toj wala ngeen di yàq seen ndey ngeen di seen baay daw nañ ba nurootuñu nit kon soxna si kontaan nañu lool wasalaam. bi li ci sama xalaat ci jamono ji ñu dimbali ñu rek ba nu Tabaski ba pare te nu andi jàmm ci réew mi te ubbil ma Walf TV samp ndënd TV ubbil ma wal Walf TV yow mi ma fekk si yaay sama télé yaa jur sama tele moom sama tele di tele askan wi nga la samp ndënd TV yaa xew yow mi ma fekk si ma ba ma mën a wax sama xalaat ci réew mi waay waay lam tooro buur gede say say say weñ sax weñi président la jàppale nu ci ceeb beeg jën yi mu gën a yomb gis nga sunu mbaar yi dimbali ñu rek nga bàyyi Sonko sa rakk la bàyyil senegal jëm kanam lam tooro burge say weñ sax weñi président la samp ndënd tiimi nag yàlla na fi yàgg ndax moo ma fekk ba ma mën a wax sama xalaat yaa xew ci jamono te nga ubbil ma Walf TV samp ndënd TV ngeen àndandoo rajo Sénégal. rek waa xat-xat yeeg yàqu-yàqu yeeg dee dee yi yàlla. def ci def ci jàmm rek jàmm rek ñu bëgg jàmm rek ci ci réew mi ak marché beeg fépp fooy ndax fooy liggéey rek bëgg ngaa am jàmm ah, ànd ak wér ah, ñaan nañu yàlla may wér may ko ñëw mboole mboolem bi jullit réew mi am jàmm ñëpp ànd mel ni mburoog soo kana koti Kaza asalaamaaleykum koti diaspora min mbere safo ƴat woli ko yaadi émission yon koregem lisisa halat lisisa halat yeti sampanden tv jat ka sanken e Euh, waafoo ba ñum nde sukee manifestation ye burom kana tukkuƴo jok ano sana jokume rek waro mam sanken probléme ye les probléme yeti euh, sénégal ceeb probléme ye këlë këlë o joka jok kok ɓe bo jeg kuñin kot bo kanak e buj kuñin kot bo kanak ɓeya wono mba fanu manje wo manje ngonu réglé a o probléme ye toŋedi viol deux ans yooye kari ben andi viol violel mange kurin di kurin lori be wata terege malege namo di kone viole bajut nyanye be bete kulo diwa corruption de la jeunesse amban be kuro di eh, corruption de la jeunesse est ce que ku mus tan ku chame man ku bajut kana ku man ku ribe no ko njat wala wara sofa monu rampenao e eh, futi ko euh eh, futi ko lekkal kana koti pastef ceeɓi kucile fo sénégal tu kana kucile fo kuñila kay ñaaw burom be ma jakkamati sénégal anan le fu yek beka kajan sénégal mais fu yek beka ma jakkamati sénégal jaat situation yon miña jaat e wara ban kana ku gagal situation yo kana so ku gagal e suke tenga teñi teñi an to kañine pour wala partisan ti sonko tu kañu beka na mati napu sankendu kone aw nu fa far pati sonko wala napu sankendu kone ma akanuma jola ci lanu ko faralo le anaw abeejike wona yajimi wana yisima no riibe noon batu jike anano manje wo fu nandi fo mu tew fo mo leti abege jike anano suumimi no eh, riibe noon mo sonko di ko riibe no anaw abete mango manano koru meno jattu ka kaja noon ka kaja na jakut ka kajan ano beya jata nya duniya tengi tengi re duniya tengi tengi fang en tout cas focus 2024 résistance rek. asalaamaaleykum waa Samp Ndënd TV Omar Badji alias Ouzombre artiste comédien résident à Yeumbeul. li ma xalaat ci réew mi actuellement métti na trop trop trop trop parce que domaine yëpp lay laal man je suis éleveur en même temps artiste comédien mais laal na sama domaine. parce que ba manifestation yi amee sama ginaar yi amuñ lu ñu lekk euh, parce que. dépôt aliment yëpp a tëjoon oto yi amuñ fu ñu jaar donc manifestation arrangé wul muy côté opposant muy côté pouvoir parce que économie dëkk lay yàq déjà man sama ginaar yi lekkuñu woon atteindre nañu feebar am naa si ay mortalité donc économie bi laal na ma te laal na samay morom loolu benn domaine la donc laal na beneen secteur tamit artistique bi ma nekk parce que maa ngi waroon di tourner mënumaa tourner donc euh, secteur yëpp lay laal ku yaakaar ni yow si buus ngay liggéey ñu lax ay bus yow kese la war a laal yaa ngi nax sa bopp ndax oto mooy transporter lépp bu ñu laqee oto laq na ñëpp bu ñu baaree tëli kenn du mën a dem maanaam si gàttal daal ce que j'en pense mooy manifestation ak ay dégâts arrangé wul kenn man li may lancé appel mooy nañ nañ manifester pacifiquement ñaxtu kaas suñuy droit su fekkee ki fi nekk arrangé wu ñu jële ko fi ndànk teg fi keneen ki nga xam ne mën na doxal réew mi wasalaam. waaw salaamaaleykum man maa ngi tudd Mouhamed Lamine Ndiaye maa ngi dëkk Yëmbal noor en face maa ngi dëkk Yëmbal noor quoi li ma xam nag si dëkk bi bëri bëri na quoi parce que soow bi bëri na lépp bëri na wante jeunesse bi dañoo war a mobiliser wu wut jàmm quoi parce que jàmm si lépp si la xaj quoi. parce que lu waaye mun a am rek te amoo jàmm amoo dara léegi lu may ñaan daal suñu suñu monsieur le président mu bàyyi mu mu mu mu yërëm ñëpp te xam ne moo jiite mbooloo bi te xam ne ku jiite moom da ngay nangoo am yërmande waaw loolu moom loolu moom naqar loolu laa loolu laa am lu may wax loo xam ne kin na ma mooy sama doléance bu nga xam ne maa ngi koy jox jeunesse bi ñu ñëpp ñu mobiliser nekk si jàmm jàmm la yëpp jàmm la jàmm la yàlla bëgg te jàmm la jàmm la ñëpp di di ngóot yàlla na yàlla may jàmm Sénégal bi te tamit lépp coow mi yëpp yàlla na mujjee jàmm. asalaamaaleykum mbooloo mi askan bi di leen nuyu di leen siyaare ñëpp di leen jox seen wàccuwaay euh, di leen euh, wax ne seen doom la Moussa Seydi dëkk yëmbal benn baraak voilà euh, réew mi nag moom wax dëgg fa yàlla moom métti na métti boo xam ne nii franchement jéggi na dayoo ko en fait man saa su ma xëyee damay xëy di xalaat sax man est-ce man. tey di xëy di dox ci dëkk bi nii ci réew mi nii sax est que wóor na ko en fait man mun naa ne mbedd bañ ma gëj a si yàgg na parce que ndax lan ndax li may toog di gis sama internet man ma jàpp na léegi est-ce que man ma naan sax est-ce que nekkul jugé film pour la actuellement ci dëkk bi xam nga ci loo xam ne nii doo comprendre quoi chaque jour que jëfee yu bees chaque jour que jëfee ak niveau yoo xam ne nii doo xam rey bi ñaaw na sacrifice bi ñaaw na xam nga en plus tamit euh, voilà doo comprendre quoi en fait. te pour man tey jii nii war na mën a ñàkk quoi déjà que damay dégg ñuy wax ci kilifa diina yi kilifa aada yi wala ñuy wax ci leneen leneen cest à am na loo xam ne pour man jarul xaar quoi pour man jarul xaar dëgg la ñoom ay kilifa lañ mais tey jii ñeneen ñu dul ñoom sax war nañ mën a taxaw tey jii nii bu la waxee ñoom ñu dégg leen mais du dara dara dara rien du tout léegi lii ba kañ dañuy wax chaque fois am fu ñu ko teg wala ñuy wax parfois am fu ko wéer. dëgg la gaa ñi ngi xeex pour suñu bopp ñuy xeex pour suñu bopp ñun xam nañ leen mais ñuy xeex pour seen poste xam nañ leen mais ñuy xeex pour askan bi tamit aussi xam nañ leen te chaque jour boo xëyee da ngay gis xeex bu ci nekk bokkul ak moroomam léegi déjà léegi loolu ba kañ son nañ ci réew mi trop rawatina ñun fi ñu dëkk nii actuellement nii doo xam li ci gën a néew sax mooy que chaque fois yi ñëw naxee ñu ci benn système mu ndaw. xam nga dañuy bàyyi ba dara jublu si ñu doog ñëw accompagne ci loolu teg loolu suñu biir xel bii nii mais tamit nag jeunes jeunes yi ñoo war a gën a mën a yeew tamit si benn côté ñoo war gën a mën a parce que ndax lan parce que tey jii yow koo xam ne bu soxlaam taxawee rek nga koy gis par rapport koo xam ne nii chaque jour ko jafe mi ngi sa wet man fii ñaata politiciens yoo xam ne fii tey xamante nañ wala azim xamante nañ fii nii mais bu seen besoin taxawee rek nga leen di gis parce que bari na fi ñoo xam ne fii tey jii nii laata ñuy falu maag ñoom am na fu ñu jot jaar xamante nañ bu baax suñu biir peut-être que tey jii buñ ma gisee nii ñoom dinañ xam ñu may wax mais jaru ko quoi pour man du ko jaar man ba ma xamee loolu ba ba léegi laa xar sama tànk tubay dem gérer sama bopp di buuj sax mu ma gënal yenn yi billaa wallaay di xëy di buuj ji mbalit yi mu leer man li ma daj sama cent maa ko moo sax bu ma ma gënal ma nekk fii di rent yenn yi mais am na loo xam dafa ñaaw ci dëkk bi